asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi jéggalu d'abord ci fukki simili ak juróom yi ñu xew waaye ki ñu doon xaar euh, yegsi na ñu mën a daal di door waxtaan bi ñu ànd ba tey ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM ci suñu émission allo docteur tey ji talaata yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2020 euh, di dalal kon docteur Woli Diop docteur euh, Diop ñu ngi lay Euh, soxna Ndeye xale yi ñu ngi lay fay di nuyu auditeur Sud FM. Mhm. lay fay yéen itam nga di chef euh, division surveillance ak riposte ca ministère de la santé ak action sociale li ñu fas yéene waxtaane tey di mbirum euh, coronavirus bu ñu ci jógee itam laal tuuti wàllu wàccu ak biir bu daw yu ñu xaw a nemmeeku ci xale yi fan yi ñu génn nii. te tamit di préciser ni coronavirus bëri na ay xeet am ñaaroo xam ni. ñoom ñooy mun a indi euh, feebar bu jéggi dayoo. Mhm. ba mun a indi épidémie. waaw waaw. te bi xew ni ci la bokk. waaw bi xew ni euh, euh, ci la bokk mu ngi tàmbalee tàmbalee Chine. Mhm. depuis le mois de décembre. d'accord lan moo koy indi. li koy indi doomu jàngoro bu ñuy wax virus la xam nga bu ñuy xool doomu jàngoro yi ñuy nekk ak nit mais yenn saay day indi feebar. Mhm. virus di la indi feebar. bactérie dina indi feebar parasite dina indi feebar champignon dina indi feebar mais bii bu ñuy wax feebar ba xam ne virus moom moo koy moom moo koy indi mhm. feebar yi virus indi bëri na donc mooy li war am na ñoo xam ni dañ fi nekk ak ñun garaawul mais fi ñoom nag am na yu mel ni coronavirus wala Ebola yoo xam ni bu ñëwee dafay nekk lu garaaw foog en tout cas matuwaay yi gën a gën bàyyi na tam dafay dafay continuer bi fan la toll fi ñu toll nii. bilan bi fu mu toll nii en tout cas ci booy xool Chine. Mhm. Euh, chaque jour chiffres yi ñu ngi ñu ngi yokku. ñu ngi yokku léegi loolu tamit lu am solo parce que épidémie bu amee euh, saa su ne dañuy war xoolaat chiffres yi vérifier ko ñun nag ci wàllu wér-gu-yaram euh, bu ñuy xool xayma chiffres yi dafa am ñoo xam ni ñoo ko yelloon. Mm-hmm. parce que da ngay gis ci réseaux sociaux yi ñu bëri ñu avancé ay chiffres mais am na site officiel bu nga xam ni euh, dëkk yëpp ñu ngi ci OMS moo koy joxe te Chine dafay partage régulièrement euh, données donc chaque jour mm-hmm. dafay évoluer comme feebar bu nga xam ni la euh, ci air bi lay lay lay wallante donc dafa nekk ko xam ni lu yomb moo tax chaque jour chiffre yi dafay dafay dafay yokk amaguñ ci lim bu ngeen mën a téye nii ne lii la nangam de cas lii moo ci bu ma la waxee léegi lim bi fekk ñaari ay waxtu mën na yokk waaw waaw waaw day yokk d'accord day yokk euh, leneen li ñu bëgg waxtaani itam mu di du ñu wax sax ne xëy na egg na fii coronavirus egg mais ay cas yu ñu doon nemmeeku fan yii yëpp ci wàllu biir bu daw ak wàccu ci xale yi en général lan moo ko yombal euh, wàccu biir bu daw ci xale yi euh, booy xool ñun dañu Euh, teg ci Sénégal te euh, tam dëkk yu bëri dañ koy def lu ñuy wax système de surveillance euh, ayu bés bu nekk dañuy jël bépp jàngoro boo xam ni am na potentiel épidémique dañ koy notifier ñu xam lim bi ñaata la fu mu nekk nii biiru daw yi yokku na ak wàcc bi mais boo ko méngalee ak ñu génn parce que loolu mooy njëriñu nga am ay ay ay chiffres boo ko méngalee ci weer wi ñu toll nii ak ñetti at yi passé da ngay xool ni lu normal la mais boo ko méngalee weer bi ñu génn nii loolu dafa yokk mhm. loolu nag euh, loolu mooy njëriñu am ay chiffres di ko utiliser ci wàllu boobu bu produit waajee ñëw mhm. dañuy waajal di def ay message de sensibilisation pour wax ni askan bi kat jamono bi ñu nekk nii wala bii di ñëw biiru daw yi dina bëri ci xale yi donc nañu nañu jël suñu ay matuwaay ba euh, gën a renforcer gën a ñoŋal lu ñuy wax les mesures élémentaires euh, d'hygiène de base mm-hmm. maanaam raxas loxo ci lu ñuy wax moment critique yi say boo génnee kër dugaat say boo génnee wala euh, dugaat balaa ngay lekk loolu yëpp da nga war a di raxas loxo pour mun a en tout cas bañ a am yooyu yooyu yooyu biir buy daw tamit tamit yokk tamit balaa ngay lekk ñam bu nga xam ni kenn du ko togg maanaam yenn cuité yi nga toqal ci tuuti ndox ak ordre pour mun a en tout cas rey doomu jàngoro yi nekk ci yooyu ñam balaa balaa ngay lekk mais bu ñuy xool euh, euh, données yi lu lu normal la parce que période bu ñuy boo jël ñett at ñu génn mhm. ci ginnaaw da ngay xool ni chiffre yi amul presque benn différence. d'accord euh, kon li leen koy jox en général li ñu lekk lay jógee. Euh, xam nga dafa am euh, jàngoro yu bëri dañuy ànd ak climat bi mm-hmm. boo xoolee euh, sibiru bu ñuy xool bu tawee bu taw bi tàmbalee lay tàmbali li ñëw lu tax parce que condition yi pour doomu jàngoro bi nekk ci ak ñu wàlle ko dafi nekk mm-hmm. lu ñuy def rek moom mooy jël suñu matuwaay ba du bëri te mbir mi dafay tamit noon la booy xool li ñuy wax maanaam écologie bi ñuy maanaam environnement virus yi climat bi ñu nekk nii dafa propice pour seeni ay développement mm-hmm. donc ñun ñoo war a renforcer suñu ay euh, matuwaay jéem a def lu nga xam ne dina wàññi bu baax a baax virus pour yooyu feebar wu euh, wàññeeku mais dafa nekk en tout cas loo xam ni dafa méngook en tout cas jamono ah, li gën am solo rek mooy li ñuy wax saa su ne mm-hmm. bu ñu amee lu mel noonu dañuy def lu ñuy wax ay investigation def ay analyse xool yan doomu jàngoro moom moo nekk ci yooyu biir bi daw te bu ñuy xool ba la euh, li ko lu ëpp en tout cas ay virus moom moo koy euh, moom moo koy joxe. d'accord kon ñu wax ne euh, ñi ngi ubbi antenne bi léegi ci 33 825 18 30 tey ñi ngi ànd ak docteur Boli Diop di chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale te ñu ngi ci wàllu. Euh, coronavirus bi ak disposition yi nga xamante ne nguur gi jël na ko dinañu ci ñëw ci biir émission bi dégg ngeen ko luñ ci expliqué euh, ci fi muy jógee ak ni ñu koy wàllante waaye itam wàllu biir bu daw ak wàccu ci xale yi ak euh, période bi ñu toll nii muy période bu mu méngool kon dañuy jël ki njëkk ci ligne bi asalaamaaleykum ñu ngi sant bu baax sëriñ bi ñu ngi lay nuyu aha fooy wootee Patte d'Oie allo ndax mën nañu faj corona coronavirus bi d'accord dina la tontu incha allah kon euh, ñi ngi nekkoon léegi Patte ak suñu auditeur boobule ci 33 825 18 30 ñu xool kan moo ci topp laajum jëm ci docteur Bouly Diop asalaamaaleykum euh, sëriñ bi na nga def. ñi ngi delloo ziar koy wote kii ci way ay ci la bu ma laaj docteur Boli jërëjëf ñu jóge kon gi jiwaay ak docteur Bouly Diop di chef euh, division bi toppatoo wàllu surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale tey moom la ñu àndal wax ci wàllu coronavirus asalaamaaleykum euh, sëriñ bi naka def baax si Cissé ñu ngi lay nuyu baaxa mi ngi lay fay bu baax oh, <laughs> D'accord. bëñ yi dafay feeñal mhm. d'accord dina la si wax lu mu xam waaye incha Euh, merci beaucoup 33 825 18 30 suñu amaatee kenn xam naa dañuy taxaw bàyyi docteur Boli tontu ñu daal di ubbiwaat antenne bi dañuy ci coronavirus ak euh, wàccoog biir bu daw ci xale yi mu di ñaari mbir loo yoo xamante ni euh, nekk nañu actualité ñu war ci mën a wax mën a leexalal askan wi naka lañu ci ciy taxawee ak lan moo indi loolu lépp loolu tax ñu dalal fi docteur Boli Diop jóge ministère de la santé asalaamaaleykum. ñu ngi sant bu baax sëriñ foo ñuy woowee ñu ngi déglu waaw mhm. d'accord mhm, jërëjëf kon ñu daal di taxaw tuuti Assane su fekkee amul ko rëcc ñu bàyyi docteur Boye Diop mu daal di tontu docteur ñu ngi njëkkee euh, Padois euh, ki ñu foo woowee li mu bëgg a xam mooy coronavirus bi ndax mën nañu ko faj bu mu weex loolu mooy laaj waaw euh, ñu ngi koy remercier ci laaj bi mu laaj mhm. di wax ni coronavirus feebar bu ñuy faj mu wér la mhm. li ñu koy waxee ci suñu kàllaama amul garab boo nga xam ne pour le moment dafay attaque virus bi mu rey mu dee mais dañ koy jël faj ko jox ko ay xeetu euh, médicament yoo xam ni dina setal euh, yaram bi dina euh, wàññi metti di bu fekkee dafa am ay jafe-jafe nooy ñu jël ko en charge en tout cas mun nañ ko faj ba mu wér dem ñibbi këram mhm. lii garaaw ci yooyu feebar rek mooy bu amee détresse respiratoire problème mu problème mu bi bu amul assistance euh, ventilation mun na ko pangal mhm. mais lu ko mooy loolu wala tamit bu amee bu am lu ñuy wax ay en viscérale euh, mais lu mooy loolu feebar boo xam ne bu ñu mun a faj la mu wér la mhm. loolu tamit euh, nit ñi dañ ko war a comprendre pour ñu en tout cas gën a mun a adhérer loolu te tamit fii tam Sénégal am nañ vraiment ay compétence ñu nga xam ni mun nañu faj mu wér donc loolu moo tax euh, en tout cas ci mesure yi ñu jël si mm-hmm. sibi nañu ay hôpitaux yoo xam ni nit bu ko amee ak système bi ñu mettre en place fii ak fii la war loolu mu ngi ci en tout cas mesure yi ñu jël d'accord euh, Guédiawaye moom nee na euh, coronavirus Ebola lu ñuy faral di dégg la yenn saa yi nee lan moo tax xeet yooyu di yenn saa yi di apparaître li ko waral bëri na am na ñu bëri ñuy wax ni déjà nit ñi ñoom ñooy perturbé maanaam euh, euh, alam bi parce que léegi booy xool euh, àll yu bëri nit ñi dañuy dëkk dañuy dem si dëkk donc te am na ay mala yu fa nekkoon am ay jàngoro yoo xam ne ñu ngi ci ñoom tant que mu ngi ci mala yi du ñu feebar mala yi mais bu ñu xasee ba génn ci mala yi ñu nit dafay am feebar donc loolu am na ñu ko wax yi beneen tamit lu ñu wax tamit mooy changement climatique bi tamit dafa indi tamit ay changement tamit ci xeetu jàngoro yi nu ñuy euh, nu ñuy dundee. loolu tamit euh, euh, benn la tamit luy expliquer pourquoi yooyu yooyu feebar di ñëw. <laughs> ñetteel tamit lu ko expliquer des fois lu ñuy wax ni nit ki di lekkee lu muy lekk. <laughs> parce que wax nañ ko lu lu bëri muy Ebola muy nekk muy coronavirus. booy xool mu ngi jógee ci mala ñëw ci nit. bu fekkee ni ñuy defaree ñam yi. àndul ak ñu toppatoo bu baax ba rey euh, virus yi nekk seen biir mun na indi wàll diggante euh, mala beeg ak mm-hmm. donc yooyu daal ci xayma mooy luy mun a expliquer lu tax yooyu léegi feebar yooyu gën a en tout cas gën a gën a bëri baax si c'est Italie euh, ndax mën nañ ko moytu ñun individuellement ku ci nekk la nga waaw loolu tamit dafa am solo te ay message yu ministère bi di yónnee ci askan bi la bi njëkk moom mooy euh, lépp lu ñu doon def lu ñuy wax euh, mesure de prévention ñu renforcer ko euh, wax naa ko ci njëlbeeni wax dañ koy duñ ko fulaal mais lu am solo la <laughs> le fait nga raxas sa loxo ndox ak saa mu set wala yenn yenn gel yi mm-hmm. wala nit ki bu feebaree di sëqat buy sëqat mu bañ a sëqat ah, ci air bi ci air bi mm-hmm. mais mu teg ci kanamam mouchoir Ah, ak ci loxoom wala mu sëqat ci euh, euh, conc bi mu mu ànd ak waaw conc bi mu yëre yi mhm. pour mu bañ a permettre virus bi euh, law ci law ci air bi donc mhm. yooyu ay tamit ay mesures yoo xam ni buñ ko jëlee dinañu wàññi propagation feebar bi mhm. donc te yooyu mesure nekkul rek day appliqué ci coronavirus même booy xool bépp de manière générale bépp feer bu xam ne dafay walante ci ci ci ci ci ngelaw mhm. yooyu mesure lañu lañu war a jël mhm. tamit yeneen mesure ñu war a appliquer mooy sànq li mu wax ñami tamit di ko togg mu ñor am na solo parce que gis nañ ni am na lënkale euh, entre nga togg ñam mu bañ a ñor mhm. ak feebar yi di ñëw donc tamit togg ñam yi mu ñor tamit lañu am solo ak tamit bu fekkee da ngay lekk ñam yoo xam ne duñ ko togg au moins nga mun ko dugal ci ndox bu am eau de javel dosé ko bu baax ba en tout cas doomu doomu jàngoro yooyu daal mooy mesure de prévention yi yoo xam ni égg nañ ko tamit bi tamit li gën am solo nit bu euh, amee lu mu yëg ci yaramam mu teel a dem kër docteur loolu tam mesure de prévention bu ama am solo la mhm. parce que loolu tamit euh, jàngale dañ ko wane plus nit ki mu ngi teel a dem kër docteur ñu teel gis jàngoroom faj bi dafay gën mucc ay d'accord laajaale na aussi ci wàllu euh, biir bu daw ak wàccu yi ci xale yi euh, daloon na doom bu am 4 ans fan mu ñu yóbbu ko hôpital traité mais xale bi am 6 mois defe naa moo desee mais kooku def ne dafay feeñal àndaale ak fièvre waaw loolu ñaari ñaari cas de figure la wax mm-hmm. euh, kenn ki am 4 ans ak kenn ki am 6 ku am 4 ans bi nee garab yi faj na ko alhamdulilah uh-huh. di wax ni rek biir bu daw moom faj bi dañ ko codifié boo demee ci euh, fi gën a sori kër docteur mhm. buñ ne xale biir bi day daw amul signe de te lu ñuy wax traitement bi dafa war a simple maanaam SRO la ak zinc mhm. loolu vraiment euh, euh, lu ñu ko war a appliquer maintenant est-ce que xale bi am 6 mois day feeñal wala déet loolu lépp lu ci mun a am biir bi daw moom buñ ñëwee jël SRO ak zinc bu fekkee danga ko jox ay fan tanewul demal ci docteur ñu évaluer xool. Mhm. parce que tamit loolu moom moo moom moo gën a euh, euh, gën a am solo balaa mu koy indil. Euh, SRO bi soo la ko mënee faram-fàcceel bu mu gën a ñuy dégg. bu mooy benn genre ndox la bu nga xam ni dafa am ci biir liñ ko tëralee. Mhm. am na xorom am na suukar am na ay coupe ñu xam ni day permettre xale bi bu biir bu dawee wala mu wàccu mhm. li muy perdre ci ferñeent yi. boobu ndox. Euh, remplacer euh, ko zinc bi tamit zinc la mais du lañu euh, comprimé wala siro zinc la mais su ko tamit jël tamit dafay yokku défense su xale bi tamit wàññi li biir bi waroon daw wala wocc donc mhm. moo tax souvent ñaar yooyu la ñuy associé pour faj biir yu daw ci ci xale yi comme ni mu ko waxee lu lu bëri ci biir yu xale yi virus moo ko joxe et ci loolu damay rappeler ni Sénégal dugal na ci programme de vaccination li ñuy wax vaccin contre bi ñu defoon xayma yi te loolu tamit lañuy si profito xayma yi ñu defoon xale yu bëri seen euh, weeru njëkk yi seen biir bi daw benn virus moo ko jox muy rotavirus mm-hmm. léegi nag bi ñu demee ba Sénégal dugal en tout cas vaccin boobu ci programme bi gis nañu am na solo lool tamit am na jeexital tamit ci euh, euh, biir bu daw xale yi parce que ñun comme ni ma la waxee chaque semaine rek dañuy xool ci Sénégal yëpp ñaata xale yu amagul juróomi at la seen biir daw wala nii wala ñëw. d' accord Dakar la ñuy ak euh, moom tam bébé bi nga xamante ne amagul ñetti weer mu seetlu ne xale bi du dem euh, ginnaaw kër lu bare dafay constipé lu toll yenn saa yi ci semaine jëm fukki fan loolu moo ko jaaxal. waaw loolu war nañ xool bu baax euh, dèjà ñetti weer la am bu ñuy xool di xayma kooku warul jël benn ñam lu dul weeru yaayam. waaw kese. parce que dañ ne allaitement exclusif ba 6 ah, mois. Ah, ah. donc lu ñu njëkk xayma mooy est-ce que yaay ji mu ngi koy nàmpal. est-ce que amul yeneen xeetu ñam yu koy jox yoo xam ni day indi seere. Mhm. loolu la ñuy xool bu fekkee am na ñu corriger ko. bu amul na ñu xool lan moo indi bur euh, euh, bi seere. parce que tamit am na feebar yu bëri yu nga xam ni du ma ne garaaw na day indi lu ñuy wax euh, seere ci ci xale bi. tam dañuy laaj parce que trois mois war na dem lu lu lu mhm. dañuy laaj est-ce que seere boobu dafa nekk ginnaaw kër buy gën day wow wala du wow donc am na lu ñu pour am une orientation xam lan la. Mhm. parce que bu fekkee dafay seere te ginnaaw kër yi wowul deful dara mun nañ njort ni ci liy dugg ni muy ah, ni muy lekkee la. Mhm. mais bu fekkee seere bu dafa ànd ak ginnaaw kër yu wow yu dëgër yu bëri. waaw mun nañu am ah, xel ñaar ni que. Euh, boutique yi nu muy indee ginnaaw kër yi mooy yëpp donc loolu yëpp ay lu ñu war a gëstu la li am solo rek mooy mu ñu ci jaaxlee ba jaaxle mhm. li ñu leen jox conseil moo ñu dem seeti pédiatre pour mu xool laaj loolu lekkinu lekkinu yaay ji du ci joué ji du ci joué loolu ñun ñoo koy wax mais waaw bo borom moom defar na yaramu yaay ji mhm. ba lépp lu mu lekk daal buy ñëw soow dina fekk soow boobu jóge ci wen bi moom moo gën ci xale bi te amul lu koy gàllankoor. d' accord kon liste bi jeex na ñu daal di ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak euh, docteur Waly Diop chef euh, division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale ñu ngi ci wàllu coronavirus bi ak euh, biir bu daw wàccu ci xale yi asalaamaaleykum sëriñ bi na nga def Mouhamed Thiam Malicounda ñu ngi leen nuyu Mouhamed. déedéet ah non du ma wax dara lu am lu am solo la doon lijjanti moo tax ñu ngi koy fay waaw macha allah ñu ngi koy fay. jërëjëf ci déglu bi jërëjëf. Well. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. waaw ñu ngi dégg waa mm-hmm. nan moo koy indi d'accord Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. D'accord dina la si wax lu mu xam incha allah <laughs> d'accord euh, le médecin jërëjëf euh, jërëjëf Mouhamed Thiam Malicounda Mbour 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique ñu fàttali ko mooy suñu sponsor traditionnel moo leen di may émission bi saa su ne 19h ba ànd ci itam ak ordre des médecins asalaamaaleykum euh, sëriñ bi na def nga ñuy woowee fan Médina ayca ñu ngi lay déglu <laughs> nu ñuy waxee feebar bi ci olof. waa dina wax ndax am na turu olofam déet euh, loolu rek la bëggoon laajte euh, merci beaucoup 33 825 18 30 ñu ngi woon Medina ñu xool ko ci topp ak préoccupation am asalaamaaleykum sëriñ bi na def foo ñuy woowee El Hadj Touré waa El ñu ngi lay nuyu mi ngi lay fay. waaw incha allah ci émission bi effectivement waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf El Hadj Touré doon ñu woowee Dakar Plateau ñu xool ku ci topp ak laajam jëm ci docteur Bouly Diop euh, amul kenn ki egsi ñu daal di tontu su fekkee amul ku ñëw euh, Alioune Badara Socé kon ñu daal di dem si réponse yi wala si na asalaamaaleykum sëriñ bi na nga def alhamdulilah fooy wootee face de loxom loolu moom laaj docteur Bouly Merci. Mm-hmm. D'accord. d' accord dina la si dina ci tontu incha allah jërëjëf 33 825 18 30 ci coronavirus bi la ñu nekk ak euh, biir bu daw ci xale yi ànd ci ak euh, chef division euh, surveillance ak CRIPOS ci ministère santé ak action sociale mu di docteur Paul Diop 19h ba 20h30 la ñuy def suñu émission ñu jël ko asalaamaaleykum allo waaleykum salaam wa ñi ngi delloo ziar fooy wote jaksaaw d'accord kilomètre arthrose waaw d'accord du ci thème bi mais bon su fekkee mën na la ci tontu dina la wax incha allah euh, jërëjëf 33 825 18 30 suñu jëlee kii ba pare dañuy daal di taxaw asalaamaaleykum euh, euh, sëriñ bi na def. Hello, mommy. jërëjëf sëriñ bi <laughs> merci beaucoup jërëjëf sëriñ bi mhm amin amin borom amin waaw ah, alhamdulilah kon macha allah allahuma amin allahuma amin amin allahuma amin jërëjëf <laughs> dañuy jéem rek dañuy jéem rek sëñ bi dañuy essayé yal na yàlla nangu ñaan ñu bokk ko ñu ñëw jërëjëf sa njukkal bi sa njukkal sax moom a gën a neex sa njukkal yow moom a gën a neex macha allah amin amin amin amin merci beaucoup Diack Sao la doon woote kon dañuy taxaw su fekkee amul ko rëcc Aline ba dafa soo suñu daal di tontu wala am na ko si ayca Mouhamed Thiam la ñuy àndal dèjà docteur Boli euh, Malicounda la wootee Mbour nee na coronavirus bi euh, xam na ni tey ci la ñuy wax waaye moom li mu seetlu itam mooy ñetti at a ngi nii ci ginnaaw benn genre épidémie bu xaw a demee ni grippe loolu la ko tuddee nee na boo xamante ne daal dafa méngoo en général ak ñibbisi ñi nga xamante ne dañu aju woon màkka lan moo ko indi ndax yéen itam am ngeen taxaw seetlu ci loolu. waaw am nañ ci taxaw seetlu bu baax a baax même booy xool ujaaj euh, yi ba nañ dem màkk ñu bëri si ñoom dañuy ñaq waaw pour def prévention grippe mhm. donc lool bu amul woon xëy na mbir mi dina gën a jéggi dayoo mais boobu prévention am na ci solo benn mhm. ñaar euh, bu ñu nekkee ak ñoom màkk ujaaj euh, yi dafa am un suivi te ci boobu suivi bokk na ci mhm. ñuy waxtaan ak ñoom pour ñu jël seen ay matuwaay pour bañ a en tout cas am feebar bi. ñoom seen bopp su ñu xasee dem màkk ñoom seen bopp mhm. tam xamata màkk tam coono la. yenn saay coono bi buñ ñu ñëwee ak coono bi seen yaram affaiblir. Mhm. virus bi mun na mun na mun na. ak dajale concentration loolu yëpp mun na ko expliquer. Mhm. mais bu ñuy xool daal bu ñu def woon lu bëri maanaam balaa ñuy dem ñu ñàkku ñu leen di sensibiliser di wax ñoom ñu leen jox garab màkk. doon na gën a doon na gën a mais je pense que action yooyu yëpp ñoom ñoo atténuer. et loolu tamit dafay duggaat rek ci wàllu prévention. Mm-hmm. ki feebar war na def en que du wàll ni ko wër. mais tam ku feebarul tamit bu gis ko feebar tamit mun a jël ay matuwaayam pour ñu bañ koo wàll parce que leen ñoom ñaar leen boole mooy euh, lu ñuy lu ñuy wàllante parce que luy jaar ci euh, euh, ngelaw bi pour wàll dafay dafay gaaw. dafay gaaw waaw gaaw. profité waale tamit di wax kenn ki laaj différence entre Ebola corona. virus ci euh, danger yi ci nekk. waaw ñoom ñaar booy xool ñoom ñaar ñëpp ay xeetu virus moo leen di joxe. Mhm. mais virus yi fu ñu bu ñu duggee ci yaram bi nu ñuy def bokkul. Hmm. bokkuñu lu leen wutale El Hadj Touré laajte waaw loolu bokkuñu moom. Mhm. parce que gis nañ ni euh, virus coronavirus bu duggee ci yaram bi dafay am tendance dem ci xëtëri fu ñu nekk. Mm-hmm. donc foofu lay am tendance alors que Ebola bu duggee si yaram bi day am tendance dugg génn loolu mooy indi booy xool nàcc nàcc yu bëri donc mm-hmm. ñoom ñaar ay virus ci mais kay a génn day ah, day bëgg génn moo tax booy xool ñoom ñaar ay virus lañ mais nu ñuy agir ci yaram bi ah, ah, bokkul tamit euh, euh, euh, mandarga yi bokkul mm-hmm. mandarga yi tamit bokkul Ebola nu muy manifesté woo ak coronavirus bi manifesté woo boxul mhm. di profito di tontu kii woote Medina Gueye. waaw euh, fu mu nekk nii moom amaguñu. <laughs> Euh, tur bi ci wolof booy xool. Mhm. bu ñuy wax lu lu bëri euh, turu tubaab bi la ñuy bu ñuy bëggee simplifier ko dañ koy méngaleeg sibiru. xam nga mhm. booy xool ci njëlbeenu waxtaan. nee naa la mandarga yi dafay niru mandarga sibiru. parce que euh, ni koy waxee feebar yu bëri am nañu obligation topp ko nekkul dañ koy topp de façon comme euh, chaque jour mhm. mais au moins établir contact téléphonique di ko laaj saa su ne fu yaramam toll yaramam toll rombee yooyu fukki fan ñeent alhamdulilah mhm. lu am ci diggante bi nag loolu mooy am soo topp boobu dafa war ñëw teel ci euh, kër docteur ay institut yu ñu koy euh, euh, tetal pour moom ñu faj ko moom ci boppam mu bañ nekk danger mais tam mu bañ a tamit ñu ñu ko ñu ko wër donc booy xool dëkk yu bëri mhm. ñi fa dugg bi ñuy dugg feebaruñu bi ñu demee ba nekk ci dëkk bi lañu lañu ko moo tax boobu dispositif def nañ ko en place loolu mooy en tout cas mu ñuy permettre même ay cas bu amee ñu teel ko gis pour faj bi gën a mucc mucc ayib. Afrique dégguñu leen fi benn cas. Afrique officiellement. officiellement ci surtout OMS. Mhm. amagul cas parce que li ñu doon gis ci réseaux sociaux yi au niveau de dëkk bu ñu euh, amal. Euh, bu ñu jege lool am na cas mais bu ñu xoolee cas suspect la parce que ba léegi amaguñu confirmation. dañ ko njort la. wax naa la njort la. parce que dafa niroog feebar yu bëri. Mhm. mais faw laboratoire bi ne moom la pour mu nekk moom. waaw ba mooy wax ni Afrique amagul cas bu nga xam ni laboratoire confirmé loolu moom leer na moom. Mhm. d'accord ñu ànd ak euh, allo docteur ànd ak docteur Boli Diop chef euh, division euh, surveillance ak riposte ministère de la santé ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum sëriñ bi na nga def waaw. Serigne Moussa Ndiaye marché Gambie ñu ngi lay nuyu Moussa alhamdulilah ñu ngi delloo ziar d'accord xam ne naa merci beaucoup jërëjëf Kër Massar la doon woote ñu ngi koy sant moom itam ci appel bi mu def 33 825 18 30 ñu xool kan mooy ñëw asalaamaaleykum mi ngi ci ligne bi allo asalaamaaleykum sëriñ bi na def fan nga ñuy woowee nii pikin rue ay ci ñu ngi lay déglu. Mhm. jërëjëf merci beaucoup ay ca coronavirus bi loo ci xam allo ma ni coronavirus bi loo ci xam mhm. Mhm. d'accord jërëjëf ñu ngi woon euh, Rue 10 kon euh, Pikine 33 825 18 30 ñu jël euh, ki ci topp su dee mi ngi ci ligne bi ak docteur Body Diop ministère santé yore division bi toppatoo wàllu surveillance ak riposte euh, ca euh, allo waaleykum salaam wa ñu ngi delloo ziar foo ñu woowee Grand Dakar mi ngi lay fay waaw am na sans décès waaw lay déglu mhm. d'accord d'accord euh, jërëjëf suñu auditeur boobule nekk ba Grand Dakar 33 825 18 30 asalaamaaleykum waaw sëriñ bi nanga def ndax ay ca ñu ngi lay déglu loo bëgg Bamba Sëriñ Bamba jërëjëf amin amin allahumma amin amin amin <laughs> jërëjëf sëriñ bi <laughs> d'accord merci beaucoup merci d'avoir ci turandoo bi Eh, jërëjëf 33 825 18 30 ñu xool kan may ñëw tey ñu ngi ci wàllu coronavirus ak eh, jaare vomissement ci xale yi asalaamaaleykum allo waaleykum salaam wa rahmatullah waaw Ibou Ngone Mbengue ñu ngi lay nuyu Ibou Ngone merci beaucoup mu ngi lay fay bu baax Mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf euh, euh, ñu xool kan ci topp ginnaaw Ibou Ngoné Mbengue doon woote yëmbal su fekkee am ko yegg si ñu ànd ak Val d'Afrique offre des médecins ak Sud FM asalaamaaleykum mm, sëriñ bi na def mm. waaw d'accord day am député waaw mi ngi lay fay bu baax amiin yaa xam mhm, mhm.